L'air du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فكي جلدي maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla leen ko dénk nuy wax alhamdulilah noo ngi julli tey ajjuma ji mujj ci weeru sel xijja muy weeru tabaski te loolu day tekki ne kon noo ngi tàggu am at wala boog at mi moom mi ngi tàggu day tekki ne itam aw lef wala am xët ci sunu lefi dund yi am na ci xët moo xam ne lemoon na tëju na tëju na yóbbaale na juróom-ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ci ay waxtu yóbbaale na loo xam ne du yées ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay bis loo xam ne itam mat na fukki weer ak ñaar loolu at mi di jeex lépp yóbbul nañu ko ci waxtu ci temps loolu nag nekkul lu néew ci dundub nit su ci lu mel noonu wàññikoo lu bare ngi ciy wàññi waaye day mel ne nit ñi moom dañuy gëlëm ci dund bi lu at yi gën a bari rek dañuy jàpp ne ñoom ñi ngi gën a am li ñu bëgg dëgg la ngi am li ñu bëgg su fekkee at yooyu jàllale nañ ko ci lu baax waaye nañ xam ne at yooyu di jàll mu ngi wàññi fan yi ñu fi waroon a am da ngay dégg ku naan am naa nangami at am naa juróom fukki at am na juróom benn fukki at te li mu waroon a wax mooy loolu kay jóg na ci sama dund lool kay ñàkk naa ko jóg na ci sama dund bi nga juddoo ci nga am li nga am donte xamoo nu mu toll looy dem nag li nga am mi ngi wàññiku waaye la wàññiku ko nag nga jàpp ne moom nga am fekk na loolaay li nga ñàkk xët yooyu nga xam ne jàll na wala les yooyu wala paas yooyu nga xam ne lii ay waxtu la lii ay bis la li ay weer la benn bu ci nekk feesal nañ ko dell ci ay jëf jëf ya nag moo xam jëf yu baax la wala safaan ba la waaye ala kulli xaal doomu aadama foofu toll moom mi ngi jëf loolee muy jëf nag waxtu yi ak bis yi ak weer yi moom lañ koy te loolee lépp mu doon jëf suñu borom takk na ko lépp donte nun dañ ci fàtte lu bare bare bare bare suñu borom nga wax ne yawma yabasuhumullahu jamian bisu yawmal qiyam yéen ñëpp yàlla dana leen dekkal fa yunabbi'uhum bima amilu mu xibaare leen wan leen mbolem lu ngeen jëfoon bi ngeen nekké ci aduna mu ne loolee kat ahsahu Allah wa nasu yàlla moom tak na ko waye mbindee fi mom fàtte nañ ko ndax wallahu ala kulli shay'in shahid borom bi dal wax ne inna nahnu nuhyil mawta nun day danañ dundalaat ñi faatu dekkal leen wa naktubu ma xaddamu lañu jiitaloon lépp ba ñuy bind nañ ko wa asaarahum liñ fi bàyyi woon itam ci loo xam ci ñoom la sababo moo xam lu baax la wala safaan bala lépp bind nañ ko wa kulla shay'in ahsaynaahu fi kitab fi imaamin mubin lenn lu ci nekk rek lépp lu mën doon rek takk nañ ko bind nañ ko ci téere boo xam ne bu bir la suñ borom ji wax ci xadisul qudsi ne li ngeen di jëf daal yéene ko moom innama hiya amalukum uhsiha lakum dama leen koy takkal dama leen koy limal suma ofikum iyaha bu ngeen ñëwee nag ñu fay leen ko fa man wajada xayran falyahmadillah koo xam ne ñëw na fekk lu baax na sant yàlla wa man wajada xayra zalik fala yalumanna illa nafsa koo xam ne ñëw na fi fekk fi nag lu wuuteeg lu baax bu mu yedd ku dul boppam ndax kat lu fi nekk rek moom moo ko fi indi loolu tax kon mbokki jullit di war na bu ñu tolloo fii di jeexal am at ñu taxaw taxawaayu nafaraat sunu bopp sànniwaat sunu xel ci at mii ci luñ ko jeexal liñ ci mën a fàttaliku ñu fàttaliku ci la ci sunu bopp jëfe li borom bi tabaraka wa taala wax ne yaa ayuha allasina amanu taqullah wal tansur nafsu maa qaddamat li xadi suñ borom ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla na ngeen sax ci ragal yàlla te nag kenn ku nekk nay seet li nga xam ne moom la jiital ëllëg jim jëm maa qaddamat li xadi loolu kon ndigalu suñu borom la kenn ku ne war ngay bàyyi xel ëllëg ji nga jëm loo fa jot a dawal wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun da ngeen ragal yalla nak te xamne yalla mom ku deñ kumpale ci mbollem li ngeen di def bolom bi dal wax ne balil insanu ala nafsihi basir li am kay nit mom xamna bopam ku ne xam nga sa bop xam nga li nga def ak li nga deful walaw alqa maazira donte nak mom day andi ay ngantam nak bu defé lu warta def da koy wutal ay lay bu bàyyee lu bax lu warona def itam da koy wutal ay lay ngir bëgg genn suñu borom tabaraka taala mi ngi giñ ci jamono ci temps bi nga xamne mom lañuy am fi nga xamne lu reey la ci nit ndax lu muy fàggu ci lu bax rek ci la koy ne doom adama yépp day perte nañ lu ku ñent melokan yi nekk ci yow la ci jitu moy ngeum yalla gu wer wetul yalla di jëf jëf ju bax waye di denkante deug di nangu ñu denk la deug waye yow itam nga di ko waye di dénkante itam muñ suñ borom di wax ni wal asr innal insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yow mbokum julit mi nga xamne ne régler sa bop lu war la may monum ibn Mahran mi ngi wax ne nit ki dal du nek ku ragal yàlla deug ludul mu mel ci bopam ni ab sociétaire di mel ak ki mu société bu amee koo xam ne da ngeen a société ngeen boole seen alal di ca liggéey ni ngeen koy calculer ngir bañ kenn ku la nax ngir xam ba xam perte ngeenam ndéet nee na nu gën a tar noonu noonu nga war a mel ci sa bakkan di régler teg moom ba xam mbaa yóbbulu la dara nañuy régler sunu bopp ci farata yi farata yi bu doon commerce la nañ xam ne mooy capital bi naafila yi mooy bénéfice bi yi ñu tere nag yooyu mooy pertement yi su fekkee yaa ngi tàbbi ci yi ñu tere loolu moom sa commerce mi ngi perte ñu régler suñu bopp itam ci càggante yi yi nga xam ne mooy sànq dund bi yu bari loo waroon a def ci lu baax di sàggan muy jàll rek waxtu yi di jàll rek eh, ngay leem rek ak a niig niigal ba sa dund far jeex mbokki julli nañ xam ne guddeeg daf ñuy soril aduna di ñu jégel alakhirah bis bu ñew rek mi ngi lay gëna soril aduna ndax li nga amon ci aduna mi ngi wañiku kon yang koy gëna sori waye yaa ngi gëna a itam alaxira texe ñeel na jaam bo xamné ne na ab ndax kat abdundu dund benn yoon lañ la koy may dundu bi bu aduna bi nga xamné ci ngay fàggoo lu baax benn yoon rek la dundu ba am alakhirah mom dundu fay la waye dutu dundu mëna daraati borom bi ne yuqallibu llahu layla wa nahaar suñ borom a ngi wëlbati guddeeg bëccëg ñuy dem ak ñëw rek ñoom de taxawuñu inna fi dalika la ibratan li ulil absar nee na loolu day ak waaroo ngi ci ci ñoo xam ne am nañuy xel am nañu gisub xol ñooñu dañ waaru ci guddeeg bëccëg ni muy demee abdullah ibni omar radiallahu anhuma nee na bi salallahu alayhi wa sallam bis teg na ci sama mbagg ne ma melal ci àdduna nde ab doxandéem àdduna bul jàppale fi nga dëkk jàpp fi sa bopp ab doxandéem wala sax aabiru sabil koo xam ne day transit di jàll rek kuy romb di jàll jaaduwul ci gëm yàlla ci ku gëm yàlla muy jeng wéer mbiram ci àdduna programme bépp nekk àdduna wërta doon ku féex ku ne faax dal xel lool ci àdduna ndax kat dafa nekk ci ab tukki tukki boo xam ne waxtu wu nekk mën ngaa dem te xamoo kañ ngay dem boo diggante woon ak nit rek ngeen war a tukki mu ne nanaa fi jaar jël la te waxule benn heure waaye nag ne la naa la fekk nga jekk rek bu ma la fekkul nga jekk kat fi laa lay ba comme nit ñi ni ñu tukkee ci avion yi nga xam ne avion bi moom moom boo fa la fa waxtu fekkul fa la lay bàyyi gis nga na fa nit ñay jiitu jee def fa ñaari waxtu wala ñetti waxtu sax lu jiitu muy dem kon nag tukki bii nga xam ne itam mooy dellu ci suñu borom tabaraka wa taala jamono bu nekk mën naa nekk kon dafa war a fekk nit ki jekk moo tax borom bi ne inna lasina laa yarjuuna liqaana nee na ñi nga xam ne ñu ne dañuy dajeeg man tukki boobu ñoom gëmuñu ko jàpp nañ ne moom bu ñu fi jógee rek jeex na waradu bil xayaati dunia dañoo gërëm dundub adduna bi adduna dafa neex ci ñoom wat ma bi biha ñu dal ci xel lool ne ci faax mel ni fii rek lañ jëm si wala siina hum an ayatina gaafiloon li leen ko yóbbee rek mooy sàggan bu ñu sàggan sama aaya yi xamuñu communiqué bi may communiqué ak ñoom alxuraan fu mu toll mi ngi communiqué ak nit ñi di leen wax li xew waaye dafa am ñoo xam ne mel ne xamuñu dara ci xibaar yooyu wala luñ ca xamit dañuy jàpp ne ñoom bokkuñu ci te yàlla jaam boo xam ne jariñoo na ab dundoom ab dundam amook dogu ci xiir lool ci benn waxtu bañ a jàll lu dul jàll na ci lu ko amal njariñ ni nga xamee ne boo yoree xaalis doo bëgg benn dërëm génn ci sa loxo lu dul ne dem na ci lu la amal njariñ waaye bu réeree wala ñu sàcc ko dalay metti lool waaye nag soo ci jëndee dara nag lu la amal njariñ loola moom ci ngay bég lool waxtu yi itam alal ju ne ci sa loxo la fexeel ba bu mu réer fexeel itam ba buñ ko sàcc mu réer mooy nga sànq ko yow sa bopp muy jàll te defoo ci dara ñu sàcc ko nag mooy ay nit ñëw di la ko yàqal di jël sa temps ci lu amul ben njariñ ba sa waxtu yooyu jeex ni ngay naqarloo bu ñu sàccoon sa alal fu ne nga di ko fa jàmbat noonu nga waroon ko raw nga waroon a jàmbatee noonu ñu sàcce sa temps sa waxtu yi nga xam ne bëggoon nga cee jaamu yàlla léeg nga toog sa kër bëgg jaamu yàlla bëgg jàng alquran wala bëgg naa fi la nit yegg di waxtaan ak yow ci waxtaan woo xam ne amul benn njariñ mën naa sa dugal la ci bakkaar ci ay jëw ak yu ni mel ba jeexal sa waxtu yooyu yépp kooku li mu la yóbbul li la sàcc moo ëpp fuuf euh, koo xam ne sàcc nañ ko alal borom bi tabaraka wa bi muy melal jaamam yu baax yi def na ñoom dañuy gaaw di jëm ci lu baax innahum kaanu yusaari'uun adduna bi da ngay gaaw ndax adduna bi taxawut adduna bi taxawut mu ngi mel ne boo taxawoon tey ay wagooy saxaar di la romb te ñu la wagoo wun romb rek na nga sànni dara ci biir te wa saxaar gi taxawut moom wago yaa ngi jàll rek ñu ubbi bunt bi nag waaye wago bunt bu tolloog yow rek sànni dara ci bagage bi ci biir xam nga boo xefee rek wago wawu jàll moom du yóbbaale dara adduna noonu la mel bi si ay wago la yuy jàll rek wagoy saxaar la lay romb di jàll te wago wane nag war ngaa sànni dara ci biir lu am njëriñ ngir boo demee nag am na wago woo xam ne bu ñëwee moom moo lay yóbbaale wago bu ñëwee moom moo lay yóbbaale mooy bis bi nga xam ne moom su ñëwee moom ci ngay dem ci ngay faatu moo gën a garaaw ci say bis moo tax borom bi ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah di leen bàyyi xel di ragal di wajal bis bi nga xamne ci ngeen delu ci yalla wago ya nga la doon romb ngay sarse bo wago ñew nak bo xamne mom do ci mëna sarse yow lañ ci sarse bis wago go xamne bu ñewé yow lañu ñu nga dugg ci biir mu dal lay yobale mu ne ñom innahum kanu yusari'una fil khairat yusari'una fil khairat dañ da gaaw ci lu sarse seeni wago wago yooyu rom ñu sarse ko ci lu bax moy bis yi wayad'una rahaban wa rahaba wakkaan wala naa xas yow mbokkum jullit mi del fàttaliku li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ki gën ci yéen wala ki ëpp aw yiw ci yéen mooy ku fanam gudd tey jëfam rafet moo tax nit ñi ku ñuy ñaanal fan wu gudd war nañ ci boole waale yàlla defal la tawfiq say jëw rafet waaye yàlla nga gudd fan rek gudd fanu gese goo xam ne àndut jëf yu rafet bu dee jëf yu ñaaw la moom gàpp fan sax moo ko gënoon bu boobaa ndax jëf yu ñaaw ya mën a néew foo toll itam yow jullit bi deen ñaan ñaan gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yonente bi daf daan wax ne allahuma jaal alxayaata siyaadatan lii fi kulli xayr yàlla yàlla na nga ma defal dund bii may dund fu ma toll ma ciy dolli ku lu baax wala mawta raxatan li min kulli shar dee nag nekk sama noflaay ci wépp ay ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq ñuy mën a jëf jëf yu baax di wattandiku mboolem lépp loo xam ne lu ñaaw la lu mu tere la yàlla nu yàlla defal tawfiq ci ñuy jëfee loo xam ne lu mu gërëb la yàlla na nu gindi ci li nga xam ne dinañ cee woote ci dëgg yàlla na nu teg ci siraatal mustaqim yàlla na defal nu tawfiq nu soxlaal suñuy waxtu ci topp ko yàlla na nu wëlbati soril nu lépp loo xam ne ak mooy ko la yàlla na suñu boroom bëggloo ngëm yàlla yàlla na ko taaral ci suñuy xol yàlla na ñu bañ noo kéefar akuk ndëngte akuk mooy yàlla yàlla na boole ci ñu jub ñi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين